Sénégal maa ngi leen di nuyu di ziyaara di tàmbali massawu ak jaal askan wi yépp di jaal ci ñi ñàkk seen bakkan ci xew-xew yi fi jóge di massawu ñi ñu tëj ci kaso yi di massawu ñi nga xam ni gaañu nañu nekk ci hôpitaux yi sentiment bi nga xam ni moom laa am yëg-yëg bi nga xam ni moom laa am bi ma ko dégloo moom président Macky Sall mooy am xol bu jeex mooy am déception mooy wax quel gâchis quel gâchis parce que mu wér ni li mu wax démb bu ko waxoon ñetti at ca gannaaw code d'honneur bi mu wax démb norme ak valeur yi mu wax démb bu ko waxoon ñetti at ca gannaaw responsabilité bi mu jéem a wane démb bu ko amoon ñetti at ca gannaaw amaana complot contre Ousmane Sonko du am. amaana ñu dee 2021 du ñu dee amaana ñu dee 2023 du ñu faatu amaana réew mi li fi yàqu du fi yàqu donc lañu ko doon xaar pour mu mate ko ñaar wala ñetti at ca gannaaw dafa bàyyi loolu nekkoon ci politique politicienne dëgmal troisième mandat bëgg ko wut ko sàkku ko dem ba xam ni daj na loo xam ni mënu koo dépassé muy askanu senegal muy doog a dëpp ki wax ak ñun démb kan la kii jéem a wane ni am na compassion am na yërmande ci askan wi waaye kooku moo toog lu ëpp weer gannaaw ba fi xale yépp faatoo yeeyu ci yàbbi ŋaangu ci jaalul ay ay mbokk seeni mbokk doon xaar bés bu rafet bés bu rafet nag pour moom mooy bésu politique politicienne mooy démb ki wax ak ñun démb di jaay ni démocrate la ak nitu jàmm la mooy kan mooy kii nga xam ne àdduna yépp def nañu enquête firnde ni moo génnee force de l'ordre yu jéggi dayoo génne ay nervi ak ay defukatu ñaawteef ñu fetal sénégalais yi rey kii génn démb naan enquête la bëgg ci transparence ñu xam li fi xew ku ko fi def mooy ki fi toog depuis deux mille vingt et un annoncé dinañu def ay enquête ci li fi xewoon ñaari at ca gannaaw te ba tey ji benn enquête amu ci kooku bu ne enquête dana am kenn mënu koo gëm kooku mooy le président bi nekkoon devant les sénégalais ñii ñëpp wax nañ ko gàcce ngaalaama peuple sénégalais bu peuple bi yox yoxi woon bu yeewi askan wi yox yoxi woon bu ñu awlu taxawaay bi ñu waroon am communauté internationale jàppale ñu ci ñu naan dana dem CPI ak du dem kon Macky Sall dana déposer candidature am waaye dafa xam ni bu ko defoon lenn rek mooy am sénégalais yépp génn jàkkaarloog moom dal ci kawam dina ci rey lu dul jeex te du am ndam te bu génnee CPI la jëm wala feneen loolu moo ko delloo ginnaaw nañu ni nag ndokk ndax lii am bu ñu naan Sénégal démocratie ba dellu na place am du moom Sénégal la tax ñu koy wax sénégalais yi tax ñu koy wax ñuy daaneel rek di wax benn affaire mu xam ko ndax moom la ñuy waxal juróom-ñaari weer a ko desee bu fekkee dafa naan pare naa dootuma nekk candidat defaraat naa sama der donc lu ma neex def ba yaakaar ni mën na def lañ ay ñi koy digal parce que xam nañu chef d'état antidémocratique yi koy digal yépp répression di ko joxi ngànnaay ak lu nekk bu fekkee dafa naan juróom-ñaari weer yi ci lay faagaagal lii fi des ci opposition ci lay boom résistants yi activistes yi yooyu pour def li ko neex nga dem ba wax na scénario yi nga xam ni moom lay préparé nañu ko ne aussi na ci dellu gannaaw ca ba muy teel balaa mu ci yegg parce que lu mu jéem danañ ko fànq du ci am ndam te danañ ko daaneel. ma daaneel fii ñu toog ci ci taabal ji suñu collègue suñu camarade suñu xarit suñu mbokk Ousmane ko fii la waroon toog ak ñun dara terewu ko fee toog lu dul coobare yi Macky Sall du dara ci justice. loolu nag lañu bëgg mu dakk dans les meilleurs dale mu yëkkati blocus bi. ñu ñu teg ci suuf dossier bi nga xam ne yëkkati nañ ko contre moom ñu teg ko bàyyi ko mu dem ci élection yi ak bépp candidat boo xam ne bëgg ngaa dem élection mu organiser élection yu wér te du ko sàcc du ko jéem a taxal jox ko keneen bu ko defee en avril 2024 mu transférer le pouvoir à l'opposition notamment Yewwi Askan Wi Sénégal continuer nekk ci jàmm maa ngi leen di gërëm di leen sant merci monsieur le ministre euh, euh, Moustapha Guirassy après le président Birame Souleye Diop Yann, ouais, Ah oui, d'accord. Ça tombe bien parce que. Euh, salam alaikum. J'ai l'habitude de dire que euh, l'émotion enferme souvent les paroles et les actes des dirigeants dans le présent, je dirais même dans l'instantanéité. L'émotion déconnecte les paroles et les actes de l'histoire, du passé. Et l'émotion aussi, quand on parle, sous le joug de l'émotion, on manque de lucidité pour pénétrer suffisamment avec force, avec impact le futur et l'avenir. Dans le discours du président Macky Sall, il y avait beaucoup d'émotions dans son discours. Et à la suite de son discours, on a senti aussi, on a écouté certains de nos compatriotes commenter avec beaucoup d'émotion. Mais il est important de rappeler que le peuple a vaincu, le peuple a gagné. C'est le triomphe du peuple. Et que cette victoire du peuple, l'émotion ne doit pas nous amener à justement ne pas faire la bonne lecture de ce qui s'est passé. Le président Macky Sall s'est déconnecté totalement du passé récent. 50 morts. Totalement déconnecté de la crise de confiance totalement déconnecté de cette crise de méfiance et même de défiance. Totalement déconnecté de la raison fondamentale qui a amené les violences il n'y a pas longtemps au Sénégal. Et naturellement, son discours, on reviendra certainement là-dessus, n'a pas permis ou n'a pas offert aux Sénégalais des paroles rassurantes et des actions rassurantes on n'en verra pas, on n'en aura pas. Les Sénégalais, le peuple sénégalais, parlait bien sûr de troisième mandat, mais les revendications étaient beaucoup plus profondes. Beaucoup plus profondes, et je refuse que, en claquant des doigts, que Macky Sall parle simplement d'un troisième mandat et qu'il délimite l'espace de réflexion. Qu'il claque encore des doigts pour dire je ne suis pas candidat, et que tout le monde dise il a donné la bonne réponse je suis désolé le peuple ne dit pas ça le peuple bien sûr c'était un point important pas par rapport à Macky Sall lui-même mais par rapport à un référendum en 2016 sur deux ou trois mandats et Macky Sall a voulu justement confisquer cela et ce que je regrette par rapport à cette réponse qui devait être une réponse historique et pédagogique Imaginez-vous un instant que Macky Sall prenne la parole pour dire je m'en tiens à ce que la Constitution dit. Je renonce un troisième mandat. C'est pas du tout la même portée, c'est pas du tout la même signification. Malheureusement, il a ramené la chose à une dimension d'ego, à une dimension personnelle. Et je dis, cette subtilité-là, je veux la relever parce que le peuple est au-dessus, comme il l'a dit, et le peuple demandait beaucoup plus. Le peuple demande quoi Il demande des élections transparentes. Le peuple demande quoi Des élections inclusives. Le peuple n'a pas été violent parce que Macky Sall a dit oui ou non, je n'allais pas être candidat. C'était une revendication, bien sûr. Mais c'était des décisions de justice qui ont amené le peuple à réagir de cette sorte. Et dans le discours du président Macky Sall, malheureusement, je n'ai pas entendu de réponse pour rassurer davantage ce peuple. donc le président Macky Sall a une opportunité extraordinaire il a encore six mois et sept mois encore une fois qu'il se détache de l'émotion et qu'il donne de la hauteur à son discours qu'il sauve le pays il a les moyens mieux vaut tard que jamais il a les moyens aujourd'hui qui s'est libéré des politiques il s'est libéré des politiciens il s'est libéré de toutes sortes de pressions je dis nous l'encourageons puisqu'il demandait donc le soutien du peuple, le peuple peut l'encourager pour prendre enfin les bonnes décisions par rapport justement à la plateforme du peuple. La plateforme, c'était pas uniquement Macky Sall, lui, entité personnelle, ne renoncer, ne dem, c'était beaucoup plus que cela. Donc encore une fois, victoire au peuple, vive le peuple sénégalais et nous pensons, nous espérons que les bonnes réformes par rapport aux institutions seront initiées. Et enfin, je dirais que ce peuple-là, c'était aussi une partie qui est allée au dialogue. Mais ce dialogue, malheureusement, le lien, il est extrêmement faible entre ce qui a été débattu, discuté et ce qui a été dit. Et là aussi, encore une fois, c'est ce jeu et ce manque de respect vis-à-vis -vis du peuple. Comment on peut mobiliser pendant deux, trois semaines le peuple en disant « c'est à partir de cette plateforme que je vais parler à ma nation ». Or, on a bien discuté de dialogue national ou politique et se rend compte finalement que parce que les questions liées à la sécurité, liées à la justice, d'autres questions qui interpellent, qui intéressent la jeunesse sénégalaise, les femmes sénégalaises, les Sénégalais de façon générale, n'ont pas du tout été absolument pas abordées par le président. Les deux seuls points qui l'intéressaient, c'était dans une semaine, on va présenter quelques projets de loi à l'Assemblée nationale. Encore une fois, six mois pour redevenir ce chef de l'État six mois pour être le père de la nation, six mois pour se battre et mettre donc le pays donc sur les bons rails. Et les bons rails, c'est d'écouter et d'entendre. Tout le monde, tous les Sénégalais veulent Ousmane Sonko comme candidat à l'élection présidentielle. Et ça, ne pas l'entendre, c'est refuser d'aller vers des élections apaisées. Ne pas l'entendre, c'est refuser d'aller dans le sens de la paix. Ousmane Sonko de Faurabok. Je vous remercie. bien, euh, le Président.